الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أولا والحمد لله آخرا والحمد لله ظاهرا والحمد لله باطنا الذي لا إله إلا هو ولا هو إلا هو في هو بالهو على الهو إلا هو إلى هو وصلى الله وسلم على عين الرحمة الربانية الياقوتة المتحققة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب الأقطاب تاج العارفين مولانا أبي العباس الشيخ أحمد ابن محمد السالمي التجاني ورضي الله أيضا عن شيخنا الأكبر بابنا العظيم مولانا الشيخ عمر بن علي نو ورضي الله أيضا عن شيخنا الكبير غوث الورى ماهي الكفر مولانا شيخ محمد الأمين جوف الكبير وبعد ذلك إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu ump kenn li nekk ci yiw ci wéram wu tedd wi fukki fan yek ñaar bu mu commencé ak ngeen di jang téré lèr ñaari lèr mo doon dajé moy lèr yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak lèru téré bi di yawaaqit bés bu nek ñu jang ci dara bam tay bam daanu ji saburu rabbil alamin fam lo xamni bu la ci yalla gindé boole la ci ba nga bokku ci du sa njambar waaye mbaaxu yàlla rekk la hmm? téere bii Faydul Anwaar moo wàcc ci xolu Seydi Hadji Omar Ndaw radiyallahu anhu muy wax rek hmm? di jële ca xadratul xay bi leer gi fa lay balleere di toq ci xol bi muy wax rek mooy mu pare mu tuddee ko yaa waaqiti mooy xam-xam yu rafet ba mel ni wurus moo fi ne dëgg la téere bi xam-xam yu rafet ba mel ni wurus rek a fi ne moo lañ tuddee ko al yawaqitul faraid mooy wurus yoo xam ne xamul kem ba pare nag ñu nekk ci weeru koo xam ne xamul kem ci biir mbindéef yi téere bu xamul kem ak xam-xam yu xamul kem ñu koy teeroo ko xamul kem mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax jotaay yi xamul xamul kem déedéet jataay bi amul kem de kon téere bu baax boobu dañ doon teeroo rasulullahi rasulullahi mi nga xam ne lu xam moo tax mu xam lu baax moo tax mu baax lu tedd moo tax mu tedd xam naa dina ñëw ci kanam incha allah waaye ñu ngi ndokkeel ñi ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon taxawee Seydi Farouk nekkoon ca kanam ànd seeg Mouhamed Diouf ak Ibrahima Diouf ak Seydi Ousseynou ak mboolem koo xam ne rek mos nañ koo invité fii waaye ak mboole seen waa daara ji surtout xale yi xale yi ñoom ñoo gën a jàmbar nag ndeysaan ñun ñëpp yàlla nañu yàlla nandal ci leeru rasulullah yi ñu xam ne mënoon nañoo bokk ci ñi ci ñiñ xañ leeru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba pare ñuy contour gammo di contourner magal rasul de haram ban boo sax ñu man ñu mësé jaar hmm? ñi nga xam ne ñu ne gàmmu baaxut gàmmu bi daala xam nga dafa am ko xam xol ba soxor xol defar wut xol ba iñaan ba mënu ko muñ muy génn ci lamiñam mag ñi fi nekk li ñu liggéey ba leer ga wuy si leen nit ñi jël seen xol yi jox ko mag ñi ñoom ñu dem ñu détourné leen def seen bopp yi leneen ñu ñëw ci réew mi woote gisuñ kenn seen xol ya bon loolu laal ñooy dafa xaraam mel ni nag ñoom ñooy xaraamal ñoom ñooy daganal te mbir yi ñoom dañoo fàtte ne mbir mbiram yàllaa de yàlla mooy xaraamal yàlla mooy daganal waaye ci ay minute ñu yóbbu la safara hmm? léegi nag ñoom yóbbu seen bopp fan aljanna ñoom d'accordal nañ mag ñële mag ñu weex ña waaye magam seen réew ñoom d'accordul leen da ngay gis koo xam ne day day wax di indi misaal ci mag ñam jàngee fële waaye mag ñi nga ne déedéet d'accordul leen cam ngir lan ngir der bu xees foog ne der bu xees bi moo gën der bu ñuul bi loolu yonent bi da koo dàq inna akramakum inda allahi atqaakum te rasul sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ne màggaluñ ko xamlewuñ ko jàngalewuñ ko wala xamle ko wala jàngale ko dafa xaraam ko dara baaxut lanay gàmmo e bés bii la rasulullahi juddu kan mooy rasulullahi kaay leen ma wax leen ko fekku leen ma daaru salaam ma wax leen kan mooy rasulullahi pour ngeen xam mbaaxam gi waaye pour ngeen xam kéemaanam gi pour ngeen xam kennam ki nga toog di waxtaanee jikko yu yonent bi صلى الله عليه وسلم ني ne dafa لا حول ولا قوه يلا yàlla yàlla هم موتا امنا كو خامني ديسان دا ngay musi nga xamne ne xol baa defaroo gut mom batay dafa taxaw ci maqaama shirku billahi maqaama shirku billahi motax man ta xamé rasulullah bay bañ ko magal rasulullah hmm waye mom lamuy def sax mo gëna yees hmm te mom mu ngi tudé ko baax manam def say vidéo Ah, YouTube yonent bi da mos a génn YouTube hmm? mos ta wax YouTube ba pare mos ta créé benn mbir moo xam ne danga koy créé di xas ay góor ni yow di xas ay julit ni yow nga ne yow yaay kibaax baax ah yonent da mos ta def loolu sallallahu alayhi wa te jàngalewu ko te du jikkoom nga ne yow rasulullahi ngay roy kay jàng alquran comme yow di julli comme yow nga di ko yéeféerloo di ko saaga di ko wax kat yu tegginiwul yonent bi de nee Eh, waajur bi mayul dom lu gën yar bu rafet kon yow mi khas julit ni bu yar nekkon ci yow wa nga roy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam do len khas de motax ya yarogut ya defarogut ya baxagut ya jubagut motax xamolu jub xamolu bax hmm lu nga deg arab rek fo fo am nga xam-xam hmm? te arab lakala rek arab du xam-xam de way arab lakala. amna ko xamne man wax arab waye xol ba xam-xam kese nak hmm yebo lolu moo arab lak la hmm yalla yàlla dimbale ñu euh tey nag fadilaa alhamdu ñu ne té lañuy motali euh téré bi ñu doon jàng di ya waqtul faraid xamna dina ci lal tuti ci buntu batinu way tem tay mom ma nga jëm ci fan ala chama lahzi waaw tey moom fa laa jëm شاء الله dama deg koo xamne da fay firi muzunul hawatil xawaatil ko ñu doy war mu naqarima lol waye waaye ma bëgg ñu xam muzunul hawatil ak kunuzul afadil modilan insha allah fala jëm waye dama bëgg téré bi nga xamne dañ ko doon jàng euh li ci nekk ci leer ak li ci Mawlana Siraaj Umar wax tagg ci rasulullah tagg ci yàlla waye ñaan ci mom pour mu meuna a mucc ci bokal yàlla ma jëm ci buntu batinu mune fi may commencé moy araytahu tahiran khillan tukallimuhu ya malik al mulk ya batinu ya allah c'est la dañoo daw yàlla ko yàlla fayal gor gi gor gi mo xam yàlla waye mo xam rasulullah waye mo nan ci leeru la ilaha illallah mu ne yow yàlla dang ñoo won rasulullahi waaye ba ñu koy won yaa ñu ko won ci maqaamam taahir hmm? araytahu taahiran yow dee wone nga rasulullahi foo ko wone ci maqaamam taahiru ku ku dara taqul ku set wecc mu ne foofu nga ñu wonee rasulullahi waaye xillan nga def ko muy sa xarit boo xam ne tukallimuhu yaa ngi waxante ak moom ها رسول الله فور رغرات دي واي يالا داي واخ رسول الله هم خلن تكلمه يا مالك الملك يا باطن يا الله يا ميغا خامني لوي بور ياكو موم لوي نغور رك يو رك لا يالا واي كنن دو بور من يو مومو ييغا خامني ياي بور بوري يو يا تن رسول الله وني كو سي مقام طاهر waye nga def ko benen maqama moy nga def ko xarit waye tamit ngay wax ak mom mu ne ko aataytahu rabbi maa lam taku tuurisuhu safwata xalqika yaa batinu yàlla radiallahu anhu mu ne yow yàlla aataytahu ay aatayta muhammad yow yàlla jox nga jox nga sayduna muhammad rabbi yow suma borom maa lam taku loo xam ne mosoo nekk tuurisuhu di ko donnloo safwata xalqika nit lu mu baax baax baax li nga jox rasulullahi mosoo ko jox nit yonenti bi ñuy Sallallahu alayhi wasallam. yeg leen ne lim xam nit musu ko xam Mawlana Seydou mok ko nettali hmm? gisoo ko aataytahu rabbi ma lam taku safwat khalqika sam binde fi luñu bax bax bax bax ak luñu sel sel ak lo leen bëgg-bëgg rasulullah li nga ko jox joxoo ci kenn ci ñom deug la de way kon nak yalla man Omar kon ma ngi lay ñaan jambu sel bi Jambu bax bi wa a'tini rabbi ya rahman ru'yatahu khairal karamati hmm ya batinu ya allah mune kon yo yalla man omar ma ngi ni taxaw ci sa buntu bi di feug rek ñu ne ko omar lo bëgg mune ru'yatahu gis rasulullah. rek la bëgg hmm bal ki jarna ñaan gis de ndax gis ko moy khairal karamat hmm karama bi gëna karam bi gëna tedd écran bi gën a baax mooy sa bët bi tegu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hmm? képp koo xam ne am nga loolu yow yëgal ne yow yaa am li gën ci àdduna hmm? wallahi ndeysaan waaye moom ñaanam gi yàlla nangul la ko bam ne suma bët bii diiru juróom fukki at mosul tegeeku ci rasulullahi hmm? waaw waaw mu ne fii kulli xaalin laa ko gis nag maa amul dama koy gis léegi bu ngoonee ma gisaat ko gannaaw soo ma gisaat ko déedéet fii kulli xaalin wa lahzatin fu ma xool rek rasulullahi lay gis mu ne man Sidi Omar mu ne ñaan naa yàlla ba yàlla may ma sama bët bi mënatul tegee ko ci rasulullahi waaw waaw waaye waxuma moom waxuma moom de waaw kay ay taalubeem waaw kay déggu leen ma waaw waaw ay taalibeem falilahi alhamdu seen bët yi duñ tegeeku ci rasulullahi mukk bu ñu nelaw sax ñu ngi koy xool bu ñuy xoolee sax ñu ngi koy xool bu ñu gëmmee sax ñu ngi koy xool ndax ñoom amatuñ bët waaye bëtu xol lañ yor te bëtu xol mooy gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cheet waaw waaw gis nga ko <laughs> ma ne ma ne waxuma moom waxuma Seydi Omar ak eh, Seydi Hadji waaye ay taalibeem laa wax ah waaw kay ay taalibeem hmm? waaye nag bëriwul taalibe de hmm? waaye waaye bëri nañ nag waaye ku di taalibeem wax de kuy taalibeem sa bët du teggeeku ci rasulullahi waaye nag boo di soppeem nag wax dëgg eh, doo fa yegg nag ndax soppe rek nga toll waaye boo dee taalibeem ba jaxasoog moom ba mu nandal la la mu naan ha tabaarakallaahu sabab bi ne rey ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw loolu wax wa aatini rabbi ya rahmaanu ru'yatahu xayral karaamaati ya baatinu ya allah looloo gën yëpp kon yàlla su ma jëmu ji wa aati jismiya ya dayaanu sixatahu maa almanaafici ya baatinu ya allah kon yàlla man omar naa wér moo tax si daaj omar daa wér kang kang la def dara jotu ko ñu ne daf dafa amoon asma ñu ne da doon feebar waaw naaw dëgg la kay nitu yàlla bu feebarul kenn du ko topp laa wax. Hmm? nitu yàlla bu feebarul kenn du ko topp waaye feebar ba du feebaru jëmmu hmm? feebaru leer la waaye feebaru leer moo tax ñu la topp hmm. dëggoo ñu tëddee dof bi boo doful kenn du la topp da feebar nga dof boo dofee dof jooju moo jàpp sa xel mi. waaye dof boobu mooy jàpp sa yaram bi ba léeg-léeg nga xëy doo mën a jóg ñu ne fa feebar déggoo bu ñu ko ñaaroo mu ne bu dee ma ñaareel ma wér saa yu ma wéree ngeen ñibbi waaw mu ma ñaareel ma wér saa yu ma wéree ngeen ñibbi ndax li li ma feebar ngeen ma toppee waaw waaw dëgg la de waaye li ko feebar mhm. moo tax ñu topp ko li ko feebar tey moo tax ñu takk ne ilaa daaru salaam yi hmm? gisoo ñëpp a ngi waaj fu ñu jëm ñu ne ilaa daaru lu ko waral feebaram ba dafa gënoon feebar ñëpp hmm? mm-hmm. waa ñun tamit nañ nañ nañ nañ gën a feebar ñëpp buñ gënee feebar ñëpp rek ni ñu xam si ñun yaakaar waaye xam lu ñu toppee xam lu ñu gëmee am lu ñu bëgg ci ñun te bu ñëwee fekk ko fi hmm? waaye boo wéree co ndong ah déedéet fay la alhamdu kon wa aati jismiya yaa dayaanu sixatahu hmm? moom lam jàpp ak wér looloo di wér مع المنافع يا باطني الله waaye kon suma xol bi nag mu ne wa aati qalbiya asraaran wa tasfiyatan min al abatili ya batinu yàllaahu kii mën naa wax de te xam li muy wax yàlla suma xol bi man omar jox ko asraar taalibe si laajo man ndaw bu jóg di dox nga ne ko foo jëm mu ne secret lay wuti déedéet Hmm? waaye ku fi ñëwoon lu fi wut si nga ne ab secret waaw kay wa aati qalbiya asraaran hmm? moom boo àndeek moom doo wuti lasraar waaye dañ koy wuti ci yow mbuutam yàlla secret yàlla mu ne yàlla kon jox ko suma xol bi ba fees del yàlla jox na ko ko hmm? gis nga koo toogal di waxtaan tamit muy taalibe eh, bu xamee ne yow taalibe Sida Jabar ndaw nga dina am lum la laaj ah waa ñoom seen kii boobu moom nangam hmm? loo ci xam ci nangam ak nangam asaraaran hmm? waaye wa tasfiyatan yàlla maa ngi lay ñaan jox ma ak sell ak ak mucc minal abaatili lépp loo xam ne nen la mën naa ca génn mën Omar hmm? gis nga ko kon képp kuy taalibeem dangaa war a mucc ci abatil abatil la eh, batil ak baatin waaw dangaa war a nag mucc ci baatil waaye seey ci biir baatin akay boo ko defee rek mu baax moo tax mu yàlla may ma ak mucc ci abaatil mooy xeetu neen yëpp mën naa ci génn waaye nag naa suux ci biir baatin nag hmm? doog a xam li ma bëgg wa aati qalbiya anwaaran tuwassiluhu ila alfutuhaati ya baatinu yàlla yàlla sama xol bi jox ko leer yoo xam ne moo koy jokkale nag ba ci futuhaat ya hmm? bo yegge nak ci futuuxaat ya nak souvent nga doog a xam ne afadil nak modi lan hmm motax mune ala shama lahzi ala he mu ne ah mu ne ñu ne waaw kay ndaw kunda mu ne chama lahzi dëgg la de waay faaxi bil kunuut yonent bi allah sama la di musoon il hawaatib kama saala faaxi bil kunuut farux ne allah sama la di musoon il hawaatib kama saala faaxi يبين نوص الأفادل علام قلبي في لواح اللسان كما تأسدني فارغني وقد كنت سانا لقيء وقلة

sëriñ Diouf sa mu ne alaa hee yéen waa àdduna mu ne mu ne déglu leen Baye Habib mu ne alaa waawee <laughs> <laughs> yéen waa réew mi ñu ne mu ne déglu leen Sidi Omar ay wax kan lay waxal rasulullahi kana kana jar ñu génnee wéef yi waaye kan la kana jar ñu dajji kondaande waaye kan moo jar ñu dagg ay maraaxil yu bari wala jëm daaru dem màggali ko mm-hmm. ñu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne déglu leen ma wax leen kan mooy rasulu hmm? mu ne man Omar dama jékki-jékki rek caama gars yi di firee yëkkatiku ñu ne yëkëtiku na lahzi way dédét dama jëk jik rek chama daal di séen lu séen lahzi suma gendé ku bi fan la jëm moy suma bëti daal dama jëk jekki rek mu ne ray rek am lu séen lan la seen muzunul hawatili ala chama lax yi lil muzuunil xawaatili kama saala faqri bi kunuuzil afaadili mu ne damaa jékki-jékki rek suma ñu ñoril ma rek su ma suma bët bi daal di seen mu zuunul afa mu zuunul lan xawaatili lan mooy mu zuunul xawaatili ndax dangay téen ci niir yële ngay gis déedéet hmm? mu zuunul xawaatil ci sa sëriñ lay jógee waaw waaw ah, mu zuunul xawaatil da ngay dem ci sa kanam sëriñ nga jàkkaarloog moom rek nga gis musunul xawaatil ni niir yaa ngi taw rek hmm? di ko taw fan ci sa biir xol bi la koy taw mu ne man Omar nag bu njëkk xaw ma woon musunul xawaatil waaye damaa jékki-jékki rek chama si ma gis musunul xawaatil ni muy dooteeg rasulullah dama ko jox rek hmm? niir yi taw rek lu muy taw hmm? anwaar musunul xawaatil nga may seetal ci ko asamaan si ay niir foo jëm amul joti xool ay niir waaye niir baa ngi ci sa biir sëriñ bi hmm? moo tax sëriñ bi bala la mënta tawal leer bu amul niir yu muy tawee kooku du sëriñ de hmm? waaw kay hmm? mu ngoog sëriñ day yor day waaw gisoo mbonaat dafa am mu euh, mu zuunul xawaatil la yor waaye yu ndaw la yor nag yu ndaw yi Hmm? moom day jékki-jékki rek akay baarakallaahu fiik jërëjëf shukran baarakallah baarakallaahu jërëjëf shukran yal na yàlla barkeel mbonaat am na musunul xawaatil waaye yu tuuti la yor mbonaat bu ñëwee du nàmpal day ñëw xool doom ji doom ji fe doom ji suur kël mu ñeeku da koy xool rek waaye sëriñ bi feek mënul loolu sëriñ bi feek mënul nga toog ci kanamam mu dóor sa xol bi sa xol bi xar te du la laal ma dagul sëriñ bi sëriñ bi da ngay ñëw ci kanam mu opéré la te du am paaka du am lañset loxoom du la laal daraam du la laal mu xar sa xol bi tawal la mu zoonul xawaatil nga doog a nekk nit moo tax mu ne ala chama lahzi lil mu zoonil xawaatili waaw kama saala noonu la kama saala la waaye wóoy wóoy bi moo tax mu ne kama saala kama saala faqri بكنوز الافاضل فقري لو مكو فيري نياك موني كما سال كوم نيك لاج فقري سوما نياكي جي فيري غاي نون لا بكنوز الافاضل واي من فيري ومنون دي كما سال نيك لاج فقري سوما حال بي لوم لاج كنوز الافاضل لان موي كنوز الافاضل كنوز الافاضل موي لي في ماك ني توغي وون كنوز موي جمع كنز كنز موي لان ndambo ndamb moy lo am ba denc ko tok ci hmm mune yàlla suma xaal bi dafa laaj moy dafa soxla soxla kunuzul afadili hmm hey allahu akbar sëriñ Aliou Ndaw ken xamul lim wax lan la kama saala faqri bi kunuzil afadili suma xaal bi ganaw ba nga xamé ne chaama lahzi lil muzun xawaatil hawatili légui nak xal bi kon soxla na lan kunuzul afadil ndax chaama lahzi bu amul xal bi ta soxla kunuzul afadil waye gannaaw ba nga xamé ne chaama lahzi légui nak xal bi soxla na lan kunuzul afadil kunuzul afadil mo lo xamné bo bo ci togué taalibe ñëw ziar ci la da ngay génné ci sa poste ci ci kanzu bobu jox soxna ci ne ko demal togg añ taalibe ñu gaaw ci togg añ bi ci seconde lay nekk ñor bi ci seconde lay nekk te kenn du génn te te duñ gis jigéen te danga ko jox soxna ci mu togg ko yëpp hmm? lool moy kunuusul afadil gisoo gisoko sayuma ñen ñi seet see ci bir neeg bi ñi ñuy waxtaan ci ay seconde dina jox soxna ci ne ko demal toggi hmm? te kenn du gis soxna ci ah waaw ah, kay mu dem togg yàpp bu neex ñëw tegal seen karam ci ay segontu ngeen suur këll. Hmm? Hmm? jóg dama sëñ bi maa ngi ñibbi suur naa këll waaw ah, kay loolu mooy kunuzul afaal moo tax mu ne kama sa ala lool loolu sëriñ sëriñ bu amut ku eh, kunuzul afaadil kooku matul sëriñ hmm? sëriñ boo xam ne laxzom bi manta dem ci muzunul xawaatil kooku matul sëriñ متامون على شام لهزيما عمر للمزون الهواطلي كما سأل فقري بكنوز الأفاضلي آه واو من أفاضلي نقلني يور لا لا أه؟ ها آه، أمول نيور لا الموتى نتلي الأفاضل كباخ لا الموتى نديو دفا باخ كون باخ أمنا لو دنتي دنش كان زبو تي ها من أه؟ لوري لا بوغ من عمر غيسوكو متمني على هم قلبي في يواقيت سادة كما ضاء ذهني بالبدور الكوامل من نك بما امي نك آه، كنوز الافاضل صوبل بي من خول مزون الحواطل لك نك هما من من أمر قلمنا لو غلم قلبي سمع قلبي بما لا خم كن ما لا يكن ما لا فلا في يواقد السادة تقام قام رسول الله في يواقد السادة يواقد لو لو كيف أي ورس ديد خم خم جمو خم رسول الله علوم يويو ما يواقد نقدم كو دف كو خمي تي مزون الحواطلي تي مزون الحواطلي سايو فخمي رسول الله سخم خم بيواقد الله motax mune nak legi ci bir xam-xam bi man suma xol bi gëlëm nafa ba yëgatul kenn xamatul kenn rasulullah rek koo ma joxoñ rek ma ne la muy mu ne damaa gëlëm mënatumaa gindeeku maanaam ba jëm xami keneen déedéet man léegi maa ci biir rasulullah yi ci biir rasulullah yi gëlëm ci biir rasulullah yi ci moom jeex naa ci moom te loolu xaqiqa la de dégg ngeen ma ok alahaama qalbi تبارك الله تبارك الله هم انا واخا نكي نمكو واخ واجي واي واي نيخنا دي هم مزون الهواتل غيس نغا ساو داجي كو تي يو باي واخ فايدو غاي واخي فايدو الهيه هم واي داغي ديم بام بام دور دوس بو خامني ني دوني مو ген دانكوي ناج mu ne suma xel mi comme niki la leeree ci lan lan moo ko leeral bil bu duuril kawaamil yi ngay dama firle ay yonent yi ñu ne yonent yi bu duur <laughs> déedéet bil bu duur ay bil bil fu fuyu doot mooy fuyu doot yiy wàcc xam nga xam-xam yi dafa am ay xaaj xaaj am na yoo xam ne ay budur la am na yoo xam ne ay kawaakib la am na yoo xam ne am na yoo xam ne am na yoo xam ne waaye waaye waaye mu ne xam-xamu fuyudaat yoy di wacce ci musuun yoy mu ne ci xam-xam yoy la la gëlëmee ala hama qalbi bil buduril kawamil lolu la bëgg wax hmm buduril kawamil yoy bo fa yegge nak manam ci ngay nek nak cheikhu nak man nga xam sen musuunul hawatil am kanzul kunuzul afadil waye nak legi nak mu def lan budurul kawamil bu durul kawaamil yooyu nag saa yu matee sa xol bi rek su waa nga am maqaama cheikhu nga nga mën toog nag su waa doo dootoo dootoo sori rasulullahi te rasulullahi boo ko soriwul yàlla soriwu la wala waaw dëgg najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى دينجلون علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى مغو فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى سببا فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى نيكن ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة عندها جنة المأوى كلا إذ يغسى سدرة ما ما زاغ البصر الله أكبر ما زاغ البصر لقد رأى من آيات ربه الكبرى لا حول ولا قوة إلا بالله لقد رأى من آيات ربه الكبرى ها واي فما سغلول القران مول نيخ رك جال واي فكان قاب قوسين او ادنا فوفو لا سغلا دغوك مو يالا بام ديمي رسول الله بام ديمي تا يالا dem na ba jege yàlla comme qaaba qawsayni loolu waral foo ne laa ilaha illallah ne muhammadu rasulullah loolu nekkul ci mbind rek de waaye ni mu amee ci mbind mi ni mu ko jegee sës ko ci mbind mi baatin bi noonu la ko sësee laa ilaha illallah rek muhammadu rasulullah yi déggoo ko daa mel ne alquran riiral na ma de fan laa nekkoon kama daa azhini موق بالبدور الكواملي كما عمر وقد كنت عطشان لغي وخلة فأروى أوامي كم كم له خير خلق ونائلي من عمر بلا لي دي أمتي من دما مرون بلا ما جس مزون الحواطل deug deug nak xana nir nir kum tawal nga mun a mandi xana waye mu ne bala ma gis musuunul xawaatil dama maroon waaw dama maron ndox waye ba ndox waaye dama maron mar bu ànd ak ci kunuzul afadil hmm may waqad kuntu atshana mu ne man Omar dama nekkon atshana di aji mar لغي موي مزون الحواطلي موي ندوخ لبر واي وخلت موي بدور الكواملي هم خلا تي تي مثال موي لغي دما لا جوخ ندوخ nga nan ba pare موي مزون الحواطل waye fekke margi dafa and xif ñu joxal ñu defaral la ben zibuy bo xamne dafa ànd ak ay dogitu balaana ci biir ak ay dogitu reseeg nangam nangam nga ne tuuy ñaari kaas nooy def hmm? biir bi day fees dell mu ne mar bu mel noonu laa maroon waaye ma dajeeg rasulullahi fa arwa e fa arwa uwa mi man omar mu ne ba ma dajeeg rasulullahi mu ne mu ma nikki ci loxo xëcc ma gësam ma rek fa arwa uwa mi la hawla wala quwwata illa billah mu ne sama mar bi deñ maru xay bi dëñ na maru xàlla bi dëñ na hmm? suur naa këll mandi lekk naa ba suur mandi naa fa arwa uwaami xayru xalqin ki nga xam ne moo gën ci nit ñi yëpp moo gën ci mbindee fi mu ne moom ma jox man Omar li ma yor rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam seet seet dégg si hmm? la mu ne moom dafa moroon dafa xiifoon waaye kan la dajeel ndax fala fala yi daje dédé dañu déedéet daje fala fala ko la koo khayru khalqin ki gën ci mbindeefu yàlla yi la dajel fa arwa uwami mu jox ma li ma naan man Omar. moo tax nan na de. moo tax ba mu naanee ba rek la wax ni ala chamalazi ha lol ci mo du ko wax de. chamalazi yow sa bëd bi mën ta gënë néegu saket bi ngaran naan chamalazi ah. sa bol bi mënta toj miir bi nga ne chamalahz yi kenn ñi moo koo wax hmm? balaa ngaa ñi wax ne chamalahz yi day fekk ne sa bët bi dafa ànd ak marto boo xam ne loo xool mu toj ko loo xool mu bëtt ko waaw ah, kay kon chamalahz yi waaye bët boo xam ne mënta jëli miir bi nga ne chamalahz yi da wax rek hmm? kon kookooy kan man ki ma nandal moo di kan huwal mujtaba والمعتنى لتفضل شتت هو الختم والقرم عماد الاماثل بكي إلى دار السلام دار السلام إلى دار السلام دار الأمن والصلاح آه. بو بغي سيكوريتي آه. دمال دارو آه، بو بغي mucc دمال دارو بو بغي فلاح دمال دارو بو بغي صلاح demal daaru ah waaye nga bëgg jàmm demal daaru ila daaru salaamin huwal mujtaba mu ne rasulullahi mooy mujtaba mu ne man ki ma nandal ñu ne kan la yow Omar yow ku la nandal ndax sa naan gi yéem na gaay yi sa naan gi yéem na àdduna ñu ne yow xamoo sëriñ mu ne waaw xam naa sëriñ de gaay yi dañoo xamul kan mooy suma sëriñ ñu ne ko kanay sa sëriñ mu ne huwal mujtaba mu ne rasulullahi mooy suma sëriñ hmm? Hmm. wal mu'tana ki nga xam ne ñëppay sonn ci moom li tafaddulin ngir baax xamuloo ne ku baax yaa ngi baaxee ci mbaaxu sallallahu alayhi wa sallam gis nga li ngay sonn yëpp ngir baax mooy jot tuuti la ci mbaaxu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa kooku may wax alxatmu hmm? moo moo kaste lépp jàngale naa xatmiya bi Euh, euh, xatmu boobu ci vidéo yi passé vidéo katmiya bi waaye wal xarmu kooku moo di sang imaadul amaasili mboole seen koo yéem ci mbaax mboole seen koo yéem ci njub mu ne mu ngi wéeru ci rasulullahi hmm? rasulullahi boo ci wéeru rek daanu hmm? kon bu ñuy wax mbaax rek mooy ka wéeru ci rasulullahi moo tax ñuy wax mbaax waaye saay woo ñu yëgee ne yow weer woo ci rasulullahi rek mbaa nga yàqu na hmm? ne man kookoy suma sëriñ nga xam ne moo baaxal gaa yëpp hmm? nga xam ne moo yéem gaa yëpp kenn mën ta dajeeg moom mu ne man xomar man damaa dajeeg moom mu def suma xol bi leer ñu ko Omar ba tey ñun xamuñu kan mooy yonent bi te ñëw nañ daaru salaam dañoo bëgg xam kanay rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam wa sab'u samawatin wa ardina mislaha bi anwari mansurin walini mafasili hmm mune ne yëgal ne juróom-ñaari asamaan yi ngay séen wa ardina mislaha ak juróom-ñaari suuf yi ngay dëgg loolu yëpp bi anwaari mansuurin Mm-hmm. waaye fii nag waxuma yonent bi de waaw bi anwaari mansuurin mu ne mu ci leeru ku ñu dimbale ki mm-hmm. bu gaa yi xëy suba nañ nañ wuti Mansour xooli ko hmm? Mansour boo ko amul sotti de déedéet ku amul Mansour doo baax ku dajee wut ak Mansour doo jub déedéet ku dajee wut ak doo am dimbal ku dajee wut ak Mansour doo xam rasulullahi waaye ku dajee wut ak Mansour doo xam sa borom wa anta baabullahi kullu man ataahu fi gayrika laa yadxulu hmm? mu ne Mansour yaa di buntu yàlla Mansour laa wax de hmm? foofu maqaam Mansour la de waaye foofu du maqaam rasulu foofu maqaam Mansour la Hmm? bi koy wax ne wa anta baabullaahi ci maqaam Mansour la ko woy hmm? waaw waaw <laughs> rasulullaahi benn tur la am ay maqaama la yu mu ñu tuddee ko ko waaw kay Mansourun ku ñu dimbale ki mu ne luy asamaan ak suuf yëpp ndike yoo ci leeru Mansour la xamee waaye boo yégee ci leeru Mansour bul wax ne ci leeru rasulullaahi waxal ci leeru Mansour waaw looloy xaqiiqa ba Hmm? mansuurun ismu mafuul la mu ngi def fa la dëkk daa tukki gisoo ko baat bi daa tukki de daa toxu dëkkam jëm daaru salaam bi ñu bëgg xamuñ ko ñu tuddee ko mansuur waaye mu ngi dëkk nasara hmm? Hmm? gisoo ko nasara dëkk waaye mu tudd mu tukki nëbb turam bi ne mansuur ko waaye wa lii ni mafasili ah ndikite yow suma loxo bii bu yëngatu mu ne leeru Mansour la ah ndike bu may dóor mu mun a dem ndike leeru Mansour la ah ndike bu ma sexee mu mun a jàll ba ñu saqar mi ndi ndike leeru Mansour la ah ndike bañ bi bët bi bu xefee xeppe ndike leeru mansour la hmm. ndike a ah, ndike bakkan bi buy noy ndike leeru mansour la a ah, ndike tank bi buy dox ndike leeru mansour la ndike bala nga dor yukko jeri ndike leeru mansour la waaw leeru mansour la de way hmm walini mafasili dego waye gis nga ba leeru mansour ñogu ci bir jëm doom adama dafa ne kang ne jadd jaddaral munu dara waye ba leeru mansour uppe duggu ci bir jëmuji jëmuji commencé noy commencé yëngatu mo indi graisse ci hmm graisse ci auto de ngeen ma hmm? waaw ñu auto bi nañ ko graissé daa bari kiic kaaj kiic kaaj hmm? ñu graissé ko mu noy nepp bi anwari man hmm, degulen ma de machine bi ñu jiyee nii te dañoo waaye dix bi mënta dox ñu ne tijjil nga grécé ko bi anwaari man walii ni mafasil yi déggu leen ma de ah <laughs> bi anwaari mansuurin walii eh. ni mafasil yi gisoo ko oh. lii nu mafasil mooy croisé ci machine hmm. hmm? croisé bi ci machine bi mooy lii nu mafasil mooy tax mu dox di mafasil yi ci machine bi mooy croisé yi hmm. خرم بايكو فوف وعرش وكرسي جنان ودرة ولوه واملاك باس اوائلي من بلا درهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ياغي يعني ديغ عرش ياغي يعني ديغ كرسي ياغي يعني ديغ جنان ياغي ديغ دره ديغ لوح ديغ املاك يب كائنات باس الاوائلي Hmm? déggu leen ba mu ne arash bii ngay dégg ah mu ne mu ngi amee ci rasul leeru rasulullahi sallallahu usul awail mooy ki nga xam ne moo fonde la jiitu woon yëpp fa xel mën a yem ca ak jiitu ñooñ ka fonde mu ne koo koy rasulullahi sallallahu sallam mu ne arash kon ci barkeem la amee kursiyu ci barkeem la amee aljana ci barkeem la amee safara ci barkeem la amee لو هو المحفوظ تبارك الله أمي ملاك يجيب تبارك تيسن بارك الله أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كن لو من تكبر أقلو من جسرك آه. تل رسول الله لا صلى الله عليه وسلم ودين وجود والعلوم وطاعة لها خير ذهب وسرور بعادل آه، واو من الدين بوي رفت من رفت بعادل عادل بمكان mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam buñ ne tey de diw sëriñ la xam nga tey masalan Mouhamed Diouf buy wax ni ñu di bëgg di kontaan di sawar ñu ne waaw ndax ci moom ci ban diine la ne ñu ne moom de ci diine islaam la ne diine islaam mooy ban diine mooy diine rasulullah yi ah xol yi sawar pour déglu ko ndax diine ba baax na leer na jub na mhm. waaye jàngal am alquran mokkal ko jàngal téere yëpp mokal ko ne gëw rasulullah nga xol bo waxe ku lay déglu kon wa dinun mu ngi taro bi adilin wujudun tabe buñ ne ak tabe di wa tabe di wa mbaax di def nangam nangam na fek ko nga wër ko ci kan bi adilin ci rasulullah tabe nga mun feñ lo tabe tabe tabe te yow bëgg rasulullah tabe go ken gisuko xamuñ ko faalé wuñ ko wal ulum ñu ne xam-xam yépp aka taaru aka baax aka bari puukare aka bari def nangam nangam waaye ci kan bi aadilin xam-xam yi xam-xam yay taaru xam-xam yay baax xam-xam yay rafet mooy xam-xam yu dem ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa taatun topp gi ñu wax ne diwam la topp yàlla diwam la topp nangam day fekk nga topp kan topp rasulullahi hmm? léegi nag yii la wax ne ودين وجود والعلوم وطاعة لها غير زهو أي ودين لها خير زهو دين أن بكر بري برفت كلاً بعادل وجود لها خير زهو كلاً بعادل والعلوم لها خير زهو كلاً بعادل وطاعة لها خير زهو كلاً بعادل سيت كي خمنا لي واخ دي واي والله مرمون تباه الأراضي والسماء بأحمدي غيرلن لخطوين غيرلن ولحزين وجميع منازلي من أسمان أكسوف نيجي خلو أسمان أكسوف دنيو خلو سوف نكو مالا جن ندخ رسول الله سمو كولا يدخ أسمان نكو جنو من ندخ دف ما يقول دنيو لون asamaan ne ko génnoo ma ñu ne mu ne ko lu tax génnoo ma mu ne ko rasulullah def may xool ak bëtam yu tedd yóbbu saa yu teene rek ci mën la jëm bàyyi na la ci suuf ay eh waay kii baax na de baax ba nga xam ne xool rek ci xool boobu yow nga baaxe waaye dëgg la de waay hmm? loolu rasulullahi def koy abal xeetam wi rasulullah dina jël jikko jooju roof ko ci sëriñ boo xam ne boo ko fekkee mu toog jublu penk mu jël bëtam ya ne la raseet xool la rek nga baax bañ lay puukare woo waaw hmm? rek nga baax bañ lay puukare woo ne la xool rek Mawlana Siraj Omar radiyallahu anhu wax naa la fi ne dafa toog benn waaye ñëw di ko ñaan loo njaboot ne ko man di xam naay jabar waaye mënu am njaboot jooy ndax ne ko man foog naa ne dootuma amati doom mu ne mu ne raseet bët bi xool ko ne ko xool naa la bëtu yërmandi allah hmm? xool naa la bëtu yërmandi ah waa ji ñibbi am tey ay sëtam a ngi fi ay sëtam hmm? waaw bët bi la ko xool rek de moo tax ma ne kon rasulullah da koy able hmm. rasulullah yëbbuwul dara lépp a fi rasulullah lépp lu yoroon da ko fee baax waay mba dégg ngeen ma dégg ngeen la tabaaha tabaaha al araadi wa samaau bi ahmad ahmad mooy turu yonent bi yonent salaam benn benn tur la am bul ma wax mukk muhammad mhm. maqaama la bum bum jéggi ñu ne ko lañ fa def rafet na sant nañ la muhammadun kuñ sant gi hmm? gisoo ko

jëf bu ko yàlla jëf loola mu jëf ko ba jéggi ko yàlla tuddee ko ko hmm? muj tabaa mooy ki doon examen bac mu mu jàll defis waaw bac la doon examen waaye dafa jàll devis ñu tuddee ko muj tabaa waa ci génn defis rasulullah yi moo génn defis hmm? sallallahu alayhi wa sallam waaw hmm? يا تبارك الله واو دبس لك ان شاء الله باحمدي لخطوين ولا حزين موتا امنا كو خامني ا مالام لوخوم بي لال سا لوخو بي رك جارنا دوخ اي كيلومتر غير لوخوم بي رك لال سا لوخو بي هم وايي غير فو خامني جوغينا فا رك جوغينا فا يو nga لال nga لال تا جوغيت بوبا ها wala foo xam ne yaramam mos na faa laal rek yow nga ñoo laal loola jaran dagg ay kilomètres ma ne looloo waral ñu ziyaar yi waliyu yàlla yi mm-hmm. hmm? waliyu day rang day rangoo maqaama boo xam ne waxuma la de waaye suuf sum jaar waaye suuf sum toog wala suuf sum tëdd loo loo fa laal barke hmm? Hmm? waaye ma ne suuf yi gënante wuñ mm-hmm. suuf yi gënante wuñ de waay baarakallaahu fii ah suuf yi gënante wuñ waaye ñett dëkkee suuf ñoo gënante waaye Daaru Salaam fa ne hmm. fii suba fi ne hmm. Tiwaawan suba fa ne Kaolack suba fa ne hmm? Fambaara suba fa ne Dakar suba fa ne Ndar suba fa ne kon lan moo tax ñu laxas ne ilaa Daaru Salaam ah saakiniha waaye kay ka dëkkee suuf sa ah kon kookaa baax suuf sa baaxul de ka dëkkee suuf saa baax waaja nee suuf gënul suuf waaye ña dëkkee suuf ñoo gënante waa kay kon booy romb ay xabru dem di ziyaare ci am ku koy contre daa xamut ka tëdd ci xabru ba mbaa xam ngaa toll noonu mbaa xam ngaa toll ni moom fépp fu mu tëdd boo fa ñëwee ne allahuma sax yàlla nangu la ci barkeem ca baaxam ga hmm? ndax li daw ci moom waaw daa mel ni daa mel ni kii na de wala eh, eh, li xazwin wala xazin wa jamii manazili ah. kon suuf asamaan ñu ngay puukarante lan la ñuy puukarante mooy ne kii ne ndax rasulullah man su suma kaw lay dox kii ne déedéet ma rasulullah daf may xool tet tet tet la hawla wala mm-hmm. waay Hmm? foofu de laa a yem. ah waaw foofu laa mën a yem de li des nag waaw ah, moom tabaarakallah dañ ko jàll. gisoo ko. wa bashara aqwaman xaar firi bu gaay nag wa bashara aqwaman bi annaka mursalun hmm. zaburun wa di firi xaar firi ko te tëjee foofu hmm? mu wa bashara aqwaman mu ne yonent bi bu mu sa ñëw bégal nga say nit ne ah man nak gaay du man de waaw yeenent bu mësa ñew ne nga gaay du man de xam nga lan la am ndaw la bu ñu yoni ngir ngeen préparer ñu ne amu ne kuy ñew ñum tuddu ahmad la tuddu bu ñewé mboolem lu ma leen waxon balen ko mboolem lu mu leen wax jël leen ko kon kay koko koko yonent bi kon ndike ben yonent am waaw kon ndike ben yonent rek mo am kon diki ah ko ñu wax isa ko ñu wax ibrahima ko ñu wax nangam kon ñoo ñepp dañoo ñëwoon ngir préparer rasulullah waye gis ngey bam ne raseet taxaw la lepp jeex yonenti jara tak amatu lenen mbax jeexna tak amatu lenen mom moy abal mbax rek nga bax abul mbax rek nga bon hmm bam ñëwee la mbax jeex bam ñëwee la wilaya jeex ba mu ñëwee la yonent jeex lépp jeex na loo bëgg rek moo la koy abal hmm? rasulullahi salaa salaam yàlla ñu ko yàlla feyal waaye yàlla na yàlla feyal ñu Mawlana Modou Diouf radiyallahu anhu mi ñu omat ci lile waaw ah, waaw yàlla na yàlla feyal ñu Mawlana Modou Diouf radiyallahu anhu yàlla na yàlla feyal ñu Mawlana Modou Diouf radiyallahu anhu moo ñu omat ci lile ba suñu xol bi rasulullahi man cee ne waaye ba ñu mun a xam xaqiqa kan mooy rasulullahi motax tax mënuñ ko fay yalla yalla fayal ñuko yalla yalla yàlla fayal ñu yalla yàlla yàlla fayal ñu barki alquran bu teul mom bu war hmm waye won, ni la buggee rasulullah bu wër wi teru won dootu am jamm day day baganti rek hmm? jumaa ji kër ga yawaqit bu jeex rek mu commencé benen yaq motax li ñun créé wuñ ko dé ah ay mujaddid lañ ci ay mujaddid lañ ci ndax de ngeen ma moy hmm. dañ cey yeesal Mm. waaye moom moo ko doon def moom bu yàq bu weer ko bu weeru gàmmu tërë woon jeex na jàkka ja kër gi yaa bu jeex rek mu dal beneen mm. bu solee complet bu rafet koppati ga mooy bu ñëw suba la gàmmu la mu ngay waaxu de fan la jëm ila daaru salaamin hmm? waaw moo tax ma ne jotaay bi nañ nañ ko tuddee ila daaru salaam ngir barkeelu ci Mawlana Modou Diouf radiyallahu anhu hmm? saa saawu soloon lu rafet rek ila daaru salaam fa la jëm nu la doon màggalee radiallahu anhu waaw tabaarakallah yàlla yàlla fay la ci moom kon moom moo ñu jàngal yoon bi moo ñu jàngal naka la ñuy màggalee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. bu demee ak daagoom ga ak muñaam gi jekk ga ba te kanam sëriñ ba moo Siraaj Omar mu ne ko sëñ Maodo ñëw nga am mu ne ko waaw mu ne ko loo wax dëgg la loo wax dëgg la maqaama wa ma yantiqu anil hawa mm-hmm. fala Mawlana mu def nekkoon Baye Habib nee na ma mu ne saa wu ma joxee Siraaja ba ndaw loxo mu ne ma an sa baay Moodu ma ne ko mu ngi mu ngi mu foofu mu ne ma kooku lu wax dëgg la kooku lu wax dëgg la daa wax naa fi ne <laughs> ma ne wa maa yantiqu anil hawaa maqaama la gaa seen bopp waaye dëgg la wa maa yantiqu daf koy abal eh, eh, xeetam wi abaloon na ko la moo Diouf radiyallahu anhu làmmiñ bi mëntoon wax mukk loo xam ne du dëgg lu wax rek dëgg lay doon Hmm? sëriñam bi ko yar def ci moom lu nekk moo dem ba seedal ko loolu ne kii wa maa yantiqu anil hawa lu wax dëgg la mm-hmm. hmm? waaye kooku bu ñu amee sens eh, taq ci moom dara toog ci jotaayam di ko waajee ila daaru salaam ah kooku sant yàlla la bu baax a baax yàlla na yàlla feyal mm-hmm. Mawlana Modou Diouf mm-hmm. radiyallahu eh, ni mu ni mu ñu wonee yoon bi dafa doy waar xam nga léeg-léeg mbir wala nit wala dara waaye kéemaanewul waaye boo xamee histoire Mawlana Mahmoud juuf ak ñim ñu wonee yoonu rasulullah yi maanaam wane ñu ko yoonu yàlla ah ah nag mag ñëpp a kat dañ maa firil firil leen ñoo yem de waaw dañ maa firil rek firil leen waaye leneen la ma cay wax moo Mahmoud Diouf a tax de waay. Hmm? leneen lama cey wax moo laa mujj fa tax de way bu ton mom duma ko wax de ah, hmm ndax lolé nak xaduñ ko jang si nak nag hmm. déedéet li ma jàng rek ngeen jang lima lire ngeen lire hmm. xama benn téere moo tax nit nit wo ma ma dama bëgg nga wax ma téré yi ngay lire sëñ bi mané ko xana téré xol ah, waaw waaw ma téré yi may lire ci xol bi la né ci téré yi téré la ilaha illallah mom rek la lire ci bama ko lire la ko Mm-hmm. <laughs> waaw cër lay laa acca nañ ko dem liiri rek ku ko liir rek liir mm. ay boo ko liiree hmm? waaye Mawlana Modou Diouf moo ñu ko liirloo waaw moo ñu ko liirloo loole xaa kenn liirloo ma ko de Mawlana Modou juuf moo ma ko liirloo nag waaw bu dee leneen nag keneen mën na ma koo leneenal waaw mm-hmm. kay waaye loolee may wax loolu moom rek moo ñu ko liirloo te liir gi ma ci liir ñi moom koo wax nag mm-hmm. léeg-léeg ma ma bëgg a wax rek far mu ne ma déet waaw ah, kon douze bi warul génn kon fajalaay alhamdu nañ sant yàlla gërëm yàlla fa maa bi ni'mati rabbika fa haddis laysa faxran ñun yëguñ sax ni ñun ñun ñooy wax ba béy pok réew mukk ci àdduna hmm? xalaatuma di wax di wane sama bopp wala di pok réew déedéet waaye damay wax ngir sant yàlla hmm? sunu borom jalla wa ala hmm. parce que mënoon na maa yemloo nag fam yemloo ñëpp Hmm? may wax di ñëw rek hmm? nii la juddoo nii la defee nangam nii la defee nangam nii defee nangam nga xam ne suma bët bi du du jàll miir bi ah loolu soriwut waaye ñu ngi sant yàlla ci xiwalam ak mbaaxam ba ñu dajalee góor googu ba mu ñu ci baatin li may wax yëpp ci baatin la waaye moom dajewuñu zahiran nii hmm? dajewuñu zahiran waaye nag daje nañ nag ci ci baatin yaanan waaw waaw bam bam def lam def wax lam wax ba alhamdulilahi rabbil alamin kon ñun dañu waron toog di wax ne jara jefe Modou Diouf radiyallahu anhu waw bu ma ko waxe nak du Modou Diouf zahir waw waxna kero keroog ne Modou Diouf zahir bu fekke ne ba ca rawdu bi rek la jaratu ko waaye bu ma nee jërëjëfee Modou Diouf xool leen baatin ba sen beuti na gis hmm waye Modou Diouf booba bi tëdd ci rawdu ba ah bobu ayam jalna de boobu wess na de lam defon def nako dem na koku bu mo ñu magal jaratu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tay bi nga xamne moy mo waral ila daaru salam bu fekke ba nek ci rawdu medina ba rek la jaratu ko hmm? waye ban rasulullah la ñuy màggal moo xamut day wax ne bid'a la bid'a la kay ndax mom falay hem kon mom nangul koko mom butam benul, ba bënul butam ba jallul kon mom bid'a la mëna gis waye yow da nga gëdër bid'am Hmm? moom dafay yéeg boppam yëg fi rasulullah yi yëg fi yàlla yow dégagé nga lépp hmm? jeex nga takk yow yëgatoo ne yaa ngi fi sax bay def bakkaar yëgatoo ne sax bay def bokkaale waaye moom moo fi yëg te moom jëmmu yëg gi mu yëg bokkaale yàlla la bu tuubul lakk de hmm? kon dem leen ngeen tuubi gaaw lakk te fexe seen xol ngeen bàyyi fa yàlla kese boo fa bàyyee yàlla kese doo bokkaale yàlla bo fa baye yàlla kesse da nga jox rasulullah li mom sallallahu alaihi wasallam waye sa wone yàlla ak musiba dal na la de kon fexe len ngeen yek yàlla tawhidul ilahiyya bi yàlla soxla bi nga xamné dafa ne hé kaay len ñu ne waaw fu ñu jëm mu ne kaay len ci benn baat bo xamné sawa'im baynana wa baynakum ñu ñëp ñoo ci yem moy lan moy la ilaha illa allah kay len ñu ñëw ñu ne hé bu ñu jaamu sunu mam bu ñu jaamu sunu baye buma len jangal suma mam buma len jangal suma bay ah kon kon luñu jang, ñu ne nañ len xamal la ilaha illallah ñun ñepp ci yam waaw waye nak nit nak dang ko jur nak ci la ilaha illallah nag waaye boo ko ci xese jur nak legi jeex na waaw bayiko ko libéré ko moom mu dem nak fexé juri keneen ci la ilaha illallah kon benn baat rek la kon woowu ma leen ci dara woowu ma leen ci kalen leen ma de woowu ma leen ci kalen jox ma xaalis de woowu ma leen ci kalen ma xamalen so mam de woowu ma leen ci kalen ma xamalen so bay de dama len woné kalen ñu xam ben baat bi nga xam ne ñun ñoo ci yem kessé baat moy la ilaha illallah muhammadu rasulullah nañ nañ ko xam kep ko woté ñukoy top difa dem lolo tax ñu xam ko siraj man radhiyallahu anhu lolo la woté motax ñu ni ila daru salaam dafa man de suma taalibe yàlla du ci ñee kenn ne na nag xaw ma dara waaye bu dee wet ak yàlla mu ne man suma taalibe ñëw ci nit ma ne looloo tax nag ñu topp sëriñ kon ci laa ilaha illallah ci la ne kenn gënul kenn waaye xam nga fiñ fiñ gënantee ki la gën a xam laa ilaha illallah kooku moo la gën du sa morom waaye ki xam te xamoo nag kon ki toll ci tefes gi doogul ci biir géej gi moom xamul la géej ga la fa ne moo tax muy wax waaye saa wu duggee ci biir géej gi ba xam li nekk ci biir géej gi dootu kontur kon kii kontur falee di gàmmu ci kontur falee nangam moom daa yem tefes bi rek di seen ndox mi yow nag da dugg ba ca biir nuur xam xeetu jën ya fa ne xam xóotaay bi naka la toll ak fan la toll nga siggi du ngeen bokk de waaye hmm? yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla def sutura yàlla na yàlla fay ñëpp mboole seen kuy gàmmu ci yàlla nañ jëm ci jàmm xegg ci jàmm lépp lu ñu fa def lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla gërëm ci barke rasulullahi lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla gërëm ci mbaaxu rasulullahi lépp lu fa nit wirda wala lu fa nit yaakaar ci anwaar ci budurul kawaamil ci kunuzul afadil muzunul xawaatil yàlla na yàlla jóor ko sa xol bi bi xaqi laa ilaha illallah xam-xamu shariatu képp ku koy jàng soxla ko yàlla na yàlla xamal la ko mu leer nañ set wecc barke lool mboole seen kuy alal wala ngay ut euh, liggéey liggéey wala xam-xam lu mën a doon yal na yàlla jox la ko ci barke borom guddi gii di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Farouk